ci bànqaas yi nga xamante ne ñooy euh, lijjanti wàllu wér-gu-yaramu askan bi ñu fekk fi nag ki ko jiite di professeur Mamadou Fall moom nga xam ne mooy njiit li professeur maa ngi lay nuyu. ngay di la gërëm si sa disponibilité ak euh, vraiment taxaw bi nga taxaw ngir euh, sensibiliser askan bi ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy wàllum poison intoxication ak leneen tey jii centre antipoison lan mooy njëriñam ci li nga xam ne mooy wér-gu-yaramu askan bi. waaw di leen gërëm si ñëw bi ngeen ñëw centre antipoison parce que ñun suñu bopp dañ ko soxla xam naa ni Sénégal ñu bëri boo leen ne centre antipoison dinañ la ndax am na. wala fu mu nekk. pour wax ni seen ñëw bi kontaan nañ ci trop dina permettre ñu gën ñoo xam gën a xam lan la ñu mën a amal njëriñ population bi. bëggoon a commencé ci li jóg tax jóg centre antipoison. dafa bokk ci structure sanitaire yi nga xam ne nii dañuy xeex. tookee mhm. bu nga xam ne mun na gaañ nit ñi bu ñuy wax tookee si tubaab moom lañuy wax produit chimique mhm. produit chimique nag dafa yaatu dem na ci produits yi ñuy def ci tool yi dem na ba ci yenn saay médicaments yi sax ba sax produit yoo am dañ koy nooyi mu mu lu mel ni par exemple saxaaru oto mhm. pour dire que par rapport ak yeneen service yi nga xam ne nii dañuy toppatoo ay ay ay euh, mbirum santé boo xam ne ay doomu jàngoroo koy indi lu mel ni ay virus ay bactéries ñun diggante nit ak tooke produit chimique mm-hmm. looloo tax centre bi jóg te muy centre boo xam am na ci réew yu bari surtout ci réew yu développé centre bi nag mu ngi door liggéey en 2009 même si buñ ko créé depuis 2006 2009 lañ commencer def activité yi kon ngeen xam ne ñu ngi commencé màgget te nit ñu xamaguñ. waaw parce que nit ñi que seen seen ñëw bi tey kontaan nañ ci trop pour gën a euh, fexe ba nit ñi xam lu ñuy def ak ban njëriñ lañ leen mën a am. ah mais surtout comme ni ma koy waxee ñun émission bi li ñu tax a jóg mooy askan bi nit ñi xamuñu ko te pourtant ñu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloog ay tooke am ci loraange mais xamuñu fu ñu jëm looloo gën a tax euh, tey ñu ñëw fii comme ni ñu ko waxee mais bu ñu waxee centre anti Euh, maanaam sant wax na day xeex tooke comme ni nga ko waxee mais lan mooy tooke déjà pour nit ñi xam. tooke bu ñu jàkkaarloog tooke. tooke bu ñu ko mënee kii moom mooy rek poson. poson te poson mooy loo xam ne nii da di produit chimique. Mhm. loo xam naturel lu luy dugg suñu yaram. te bu duggee suñu yaram mën nañoo gaañ. mën naa wax ni tooke bu ko tubaab bi ni mu koy bindee sax danaan lépp tooke la waaye dara du tooke. lu tax expression boobu parce que produit bu ñu mënta jël commencé par garab yi nga xam dañ koy jëfandikoo ñépp xam nañ ni toujours dañ naan la lii nga ciy jël ñaata comprimé ñaata yoon par bis boo ko dépassé dose bi day mën a élevé donc li nga ciy jël day bari. Mhm. foofu la lay gaañe foofu garab bi day commencé nekk doole mhm. bu dee aussi même ci plante yi nga xam ne nit ñi dañ koy jël yaakaar ne comme seen naturel du gaañe mhm. boo ci jëlee lu ëpp mën nañ la gaañ mën nañ la gaañ donc tooke benn niveau lay doon bu dee am na niveau boo xam ne nii du la gaañ am na niveau xam boo fa yeggee mu gaañ la ndax li ñuy lekk lépp lu ñuy lekk fi mu nekk nii àdduna am na ay produits yoo xam ne nii bu ëppee baaxul suñu yaram quantité muy nekk ci ñam yi dana néew néew goo xam ne suñu yaram mun na xeex moom du nekk tooke d'accord mais am na yooyu yoo xam nag bu ko tuddee rek dañu xalaat ni tooke la par exemple bu ñu nee la acide cyanhydrique kooku dafa gaaw a rey ba boo ko tuddee rek dañ naan laa tooke la mu ngi mel ni rek ñu ni la ñu ni la jaan jaan fu ñu ko tuddee dañ naan danger la souvent produit yi nga xam dañu gaaw a rey la ñuy considérer comme ay produit tooke xaw a fàtte yi nga xam ni gaawuñu rey mhm. alors que tooke mën nga ko jël benn yoon bu élevé mu gaañ la am na ci yoo xam nag tuuti moo ci dugg sa yaram chaque jour chaque jour peut-être dans dix ans quinze ans. ngay sortir génn mu soog a génn wane wane wane jikkoom. Mhm. te loolu yëpp dafa nekk suñu liggéey fexe ba euh, di jàppale euh, état bi euh, autorités yi pour ñu mën a jël ay réglementation di liggéey ak également ñi nekk ci hôpitaux yi pour bu tookee amee nan lañ koy mën a jëlee en charge mhm. mais également di sensibiliser population bi ñu xam li ñuy wax tooke mën naa ne sax eau de javel bi ñuy jël ci kër yi. dëgg la tooke la. Mm-hmm. parce que des fois mu ne intoxication mais mun nañ ci wax ak ñoom ba ñu xam nan lañ koy jëlee. Mm-hmm. wala même buñ ko jëlee mu nekk lu leen mën a gaañ buñ ñu woowee. Mm-hmm. assez rapidement mun nañ leen a mën a wax lan la ñu mën a def. pour régler problème d'accord loolu moom daañ si dellu si maanaam nit ki bu confronté woo. Euh, à un maanaam tooke bi yan euh, jéego la war a def mais tey jii est-ce que mun nañu wax ne tooke yëpp pro si produit chimique rek lañ ko mën a gis wala am na yeneen façon tooke. non bu ñuy wax tooke ni ma ko comprendre man sama wolof. Mhm. mooy produit chimique. mais produit chimique nag dafa yaatu. d'accord te ñëpp koy utiliser ndax bu ñuy wax produit chimique saxaar yi ñuy noyyi ci la bokk. ok cuuraay bi ngay def sa kër ci la bokk. saabu bi ngay utiliser sa kër si la bokk. eau de javel bi ci la bokk médicament yi ngay naan ci la bokk. même li ngay def sa lekk. li ngay def sa lekk même jum produit yi ngay def sax si lekk lu mel ni ay. safran safara ak yooyu tant que tolluwul fu ñu lay gaañoo duñ ko wax tooke mais dafa di loo xam ne mun na nekk tooke ma jox la exemple bu simple. Mhm. tey bu ñu ne woon ndox tooke la déedéet. nga ndox bi ñu naan waaw parce que dañ ko soxla. Mhm. mais yow fi ko toog mënoo jël juróomi liitaru ndox naan ko. ci mhm. saa si dalay gaañ. donc bu tolloo fenn fii ndox boobu da lay gaañ tooke it noonu la mel dafa am yoo xam ne nag tuuti moo lay gaañ am loo xam il faut nga lekk ci lu baree baree bari mu soog la gaañ yi nga xam ne nag lu baree bari la mu lay laaj comme lu mel ni ndox mhm. ay ay ay yeneen produit am dañ ko soxla yooyu duñ ko tuddee tooke mhm. mais am na foo xam ne boo fa tooke bi yaa koy indil sa bopp si koy utiliser mu ngi mel ni rek ça ne existe pas ñu ni la woon da ngay ñaan ndox ñu jël ndox bi defal la ko ci seringue doo ko pikiru mhm. foofu ndox mi day nekk tooke mhm. parce que fu muy jaar la mhm. donc définition bi dafa xaw yaatu mais li ñuy jàpp ni mooy tooke daal mooy surtout produit yoo xam ne nii suñu yaram soxlawu ko du toujours lañ koy utiliser ñu ciy jël loo xam ne nii juste suñu yaram soxla la mais tey euh, professeur Fall tey mu ñu xoolee nit ñi ni ñuy dundee nit ñi rek naturellement ni ñuy dundee au quotidien ak euh, même ni ñuy liggéeyi nit ñi faral def tey jii euh, dans notre vie quotidienne lan mooy toog yi nga xam ne nit ñi war nañ ci gën a bàyyi xel te mënul te mënuñ koo ñàkk euh, mënul ñàkk suñ dundin. waaw xam naa ni fi may commencer mooy produit yi ñuy utiliser ci kër yi. Mhm. pour nettoyer lu mel ni eau de javel. des fois aussi mu nekk lessive bi. wala mu nekk yeneen produit yoo xam ne dañ koy utiliser pour raxas ay acide ay xeme yooyu lu bëri problème la actuellement. loolu dañuy faral yéen di leen ci solliciter lu bëri yoon. lu bëree bëree bëri lu mel ni xeme sax laay commencé. Mm-hmm. ndax dégâts yi muy def bëri na trop. xeme bi tubaab mu ngi koy wax soude caustique. Mm-hmm. dafa dañ koy utiliser pour raxas ay karo parce que day du raxas sax moom day xolli. Mm-hmm. day arrivé nekk ay xale ñëw accidentellement du ñu xàmmee ndox meek. sudd bi ñu naan ko te suñ ko naanee boobu moom daanaka seen boli bi yépp ba seen biir bi daf koy lakk hôpital la mujj sax service chirurgie yi souvent liñ ci am ci ay cas bari na trop bu ngeen demoon hôpital Albert Royer chirurgie infantile bari na ay xale yoo xam ne nii mhm. xeme boobu la ñuy naan xeme bi nag bu demee ba nga war ko utiliser li ñuy joxe conseil mooy nga jënd ci juste li nga soxla mhm. nga utiliser ko léegi mu jeex mais di ko denc nga bañ boo koy conserver tëjoo ko fu xale yi mën a nga teg ko noonu xale moom lu ñu koy nëbb rek lay wër. Mhm. même boo nee da koy làq day yaakaar li ñu koy làq dafa baax. eau de javel souvent yi ñuy jaay ci bitik yi du am problème il arrive nit ñi naan ko mu xaw a lakk seen gémmañ yooyu souvent bu ñu woowee sax bu ñu waxtaanee ak nit ñi dañ leen di xamal ni galaxndikool ndox defal lii jarul ngay dem hôpital parce que concentré wul. waaye boo demee nag jël grain bi defaral ko sa bopp. ok ba mu concentré loolu dafay mel ni euh, xeme bi ma la doon wax sànq daanaka ñoom ñaar ñooy yem lu ñuy def ci def ci yaram moo tax produit toujours dañoo war a jënd bi nga xam ne nii pour kër la. Mhm. bi nga xam ne nii nag usines yi industrie yi ñoo koy soxla yooyu souvent dafay concentré ñoom nañ xam ni ñu koy jëfandikoo. mais produit buy dem ci kër dañoo war a jël produit bi xam ne lii dañ koo defar pour kër. grawul trop même bu dee mën na laa xosu tuuti mais xosu bi du jar ñu lay hospitaliser peut-être soins yu simple lay indi. Mm-hmm. leneen li it mooy garab yi ñuy denc ci kër yi. Mm-hmm. surtout siro yi. siro siro yi waaw parce que naan siro ba tane denc ko ci kër denc ko boo ko dencul fu baax tëjoo ko xale yi mën nañ ci jot mhm. te bu boobaa mën nañ yàlla moom doon nag siro bu neex bu dee siro bu neex yàlla def na nag siro yu bëri léegi sax li ñuy demandé ñu koy fabriqué dañuy fexe ba kubéer bi ñu def ko système boo xam xale du ko mën a ubbi boo xoolee siro yu parasetamul yu bëri xale bi day ñëw tourner tourner ba sonn du ubbeeku il faut mu bës ko mm-hmm. tourner mu soog a ubbeeku loolu système de sécurité la pour éviter accident yi ñuy am ak médicament yi mm-hmm. comme aussi xale yu jaawale ay garabu mag xam garab xal mag war a jël xale jël ko kooku musiba lay indi mm-hmm. et li ci gën a garaaw des fois bu amee parents yi dañuy xaw a am kersa parce que comme ils son coupables boo yeexee dañuy commencer bëgg wut ay solution gauche droite ba fu mu leen ëppee doole la ñuy soog a dem hôpital wala ñu woo centre antipoison mhm. donc euh, accident yi daal bëri na mhm. et euh, je pense que bu ñu jokkoo nit ñi ñu gën ñoo donc c'est pratique domi domestique yi si la ñu war a gën a bàyyi xel lii di pratique domestique yi parce que comme ñun ñëpp ay kër lañu am di utiliser produit waaye mhm. bu ñu génnee foofu dañuy dem aussi ci tooke yi ñu def ci tool yi pesticide yi waaw waaw yooyu moom saa waaw day def débat lu bëri yooyu ñi koy utiliser des fois mun na leen gaañ parce que xam nga produit bu am xet. souvent boo koy tàmmee di liggéey da ngay dem ba dootoo sentir xet bi. c'est vrai nag yow fi mu nekk ni produit bi sa xarit la. Mm-hmm. alors ko foofu la gën a grave. donc mën nga koy jël muy dugg sa yaram par tuuti par tuuti souvent da ngay dem ba ay mu teg ay at nga soog ko sentir boo demee ci docteur bi wax boo yeexee du xam lu la dal fekk la nga daan utiliser la wala ñu utiliser ci lu ëpp. ci gàncax gi ñu war ko lekk mm-hmm. yow ba nga koy lekk aussi produit bi mm-hmm. ndekete li des ci gàncax gi dafa xaw a bari mm-hmm. même bu la gaañul benn fan bu dee dañ koo continuer di koy chaque jour yow ngay lekk lekk boo xam ni produit yooyu daf ci des un jour mën na indil feebar population yi loolu yépp am na ci beneen bi it peut-être euh, gëstu bi bëriwu ci trop mais xam nañ ni ñii naan ay reen ak ay xob ak yooyu ah, ñun xam nañ ni garab moom ci médicament yépp di jóge garab bu ne am na lu muy faj waaye nag des fois booy wax nit ñi ne leen garab dañ ciy naan loo xam daanaka dañ koy def ndaa bu ñu leen naan leen tel garab wala ñu ne boo maree rek naan ci loolu c'est très dangereux te malheureusement surtout ñuy faj euh, ay feebaru euh, roñoo yeeg yooyu xam nañ am na garab yu bëri buñ tolloo yenn niveau yi dañuy dañuy dañuy gaañ et je pense que loolu aussi nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax d' accord léegi euh, professeur léegi bu ñu jógee foofu nit ki naka lay maanaam c' est pour parler des symptômes nit ñi nit ki nu muy xamee na moom jànkonte na ak euh, produit toxique maanaam poison wala tooke mu ngi ci yaramam. alors bu dee bu dee def ci jël lu bari loo xam ni ni na ko gaañ par exemple loo xam da nga ko jël léegi yëg ko léegi kooku moom yow sa bopp yaay def diagnostic bi mhm. parce que di nga woote docteur daan ne ah man de dama jël lii mu def ma lii. boobu moom mooy bi nga xam ni diagnostic bi nit ki ci boppam mën na ko defal boppam mais bu paasee foofu nag souvent il faut que docteur bi saytu seet il peut arriver par ñu ni nit dafa xaru naan tooke même bu dee yëg si hôpital souvent te daana ko demagul même bu mënul wax ñi dëkk ak moom mën nañ leen a laaj fi ñu commencé mooy kii lu ko daloon lan la doon def lan ngeen fekk ci wetam parce que tooke ki ko jël toujours mu ngi ci wetam mm-hmm. bu dee ay comprimé la naan boo xoolee ci wetam boîte comprimé baa nga fa docteur bi dina xaw a xam ni kii lii la jël bu dul loolu aussi mën nañu demander ay analyse boobu mooy gën a jafe parce que des fois boo xamul lu dal nit ki pour nga ni tel produit laa bëgg a analyser day xaw a jafe mais heureusement ko souvent bu fekkee nit ki dal na ko ba mu toll yenn ni booy bu yëg see hôpital dañ koy faj comme ku feebar rek par exemple boo dee sa yaram tàngee ñu xool lu koy seddal bu si biir dee metti ñu xool après di gëstu kii bi comme yeneen feebar yi di orienté wu def enquête fu mu jógee et cetera laaj ñu ko kii ba xam ni lii tooke la ou pas. kon maanaam euh, nit koo xam ne dafa jël tooke neexul yombul faj. yombul faj bu xamul lan la parce que tooke yi dañu bari. dafa laaj diagnostic bu pointu daal dafa laaj bu pointu mais bu ñu amee information si dëkkuwaayam. Mhm. li mu doon jël. et cetera des fois mën na orienter rapidement médecin bi mais bu ñu wootee centre antipoison xam naa dañ ñëw ci numéro ci numéro bien woowee souvent dañuy laaj laaj jéem a orienté nga joxe numéro bi en même temps jéem waa numéro bi numéro boo xam la numéro euh, d'urgence la 818 00 15 15 numéro la boo xam ne boo ci wootee 24 heures sur 24 di nga woo di nga jot benn ndaw centre antipoison bu amul problème technique. waa ni ñu def sax parce que numéro bi malheureusement da di numéro boo xam ne nii boo dee Illimix doo ñu jot boo yoree ba beneen euh, nekk ci beneen réseau bu dul orange aussi. doo ah loolu tamit si su dee situation d'urgence tam professeur loolu problème la de. problème bu mag la. Ah. moo taxoon sax. depuis daaw ñu bind. waaw ah, parce que poison moom nit ku nit ku nit ku jànkoonteeg poison urgence ku la. sauver nga soxla automatiquement effectivement problème boobu ñun xam nañ ko ba taxoon nañu bind ministre bi ne ko mu ñaanal ñu ñu def ko numéro d'urgence comme numéro yeneen nga xam ne yéen kay maa ngi doog lu tax nit ñi xamuñu leen wala duñu leen solution <laughs> waaw loolu problème la mais bi ko defee daaw ba bind ñu yóbbu leetre bi au niveau de la présidence parce que ñoom ñooy toppatoo facture état bi dañ ñu non duñ leen ko mën a defal numéro parce que nit ñi dañ ci foo di wooteeg et cetera et ce qui malheureux. xam naa dinañ ko defaat ren comme am nañu nguur gu bees dañ leen a expliquer ni population bi dañoo soxla numéro bi 24 heures ah. sur 24 pour mën a jot centre antipoison nga xam da leen di dimbali. parce que dimbali bi. c'est une question d'urgence et de. et de survie bakkan de survie ah. mais des fois sax économique. voilà parce que ki nga xam ne nii tooke bu mu jël mën naa am ko gaañ bu baax bu ñu jotee dañ koy wax. dalal mhm. xelam. Mhm. wax ko lu muy war a def mën na toog këram du dem hôpital. parce que foofu bu tiitee tiit des fois nit ñi dañuy am tiitaange joxe ndox joxe meew gàddu yóbbu. hôpital alors que parfois joxe ndox bi wala meew bi mën na gën nekk beneen poison mën na ko aggraver. donc dem hôpital encombré hôpitaux yi loolu yëpp économiquement ça coûte. Mhm. alors que bu ñu woowee ñun ak ñoom même médecin bi sax souvent au lieu que muy jéem a def faj bu ne mun nañ ko expliquer ne ko kii kat. lii la war a jël defal lii defal lii. Mhm. bu ñu ko xamul it ñu ne ah kon xamuñu ko surveiller ko de telle heure à telle heure et cetera. Mhm. bëri na ay cas yu ñu koy def yoo xam ne nii des fois malade bi rapidement day ñibbi këram yenn saa yi bu ñu amul orientation médecin bi ndax da koy surveiller ñuy jokkook moom ba mu am ay heure voire même le lendemain. en ce la ñu jéem a conclure ne peut-être kii mën ngeen ko bàyyi mu ñibbi. d'accord mais ni ñu def nag pour l'instant ce qu'on a fait c'est li ñu def mooy ut benn numéro. beneen mhm. numéro orange. Mhm. direct. le 78 388 32 32. pour jéem a pallier effet boobu. et numéro boobu également ñu ngi koy séddoo. ak au moins le milieu médical mais également sur sunu flyers yi ñu def yëpp dañ ko ci ajouté. Mhm. nga xam numéro boobu boo amee Illimix boo nekkee beneen réseau. di nga mën a jot et en même temps même le 818 également mun nañ ko transférer ci numéro bi au cas où duñ jot. donc pour l'instant daal. solution yéen a ngi ay yeneen alternative mais li ñu gënal daal mooy fexe ba. Ah état bi may ñu le 818 0015 15 nekk un numéro. d'urgence accessible pour tout le monde accessible pour tout le monde. Ah. je pense que ça ça ah. pourrait. non loolu moom waa c'est un bon plaidoyer mais n'empêche quand il faut dire que tane na. de d'année en ne gis nañ ni nit ñi ñu ngi ñuy xam. Mhm. parce que des fois année yu jëkk yëpp peut-être at bi yëpp boo yeexee boo daan am ay fanweeri appel mais léegi dépassé nañ ko lu baree baree mhm. bari fanweeru appel yi defe naa ni on peut l'avoir rapidement en moins de vingt jours maintenant. d'accord waaw mais nag lu ci bëri service. structure euh, médicale yi ñooy woote mhm. population bi am na ñuy woote mais mbareegul alors que numéro bi pour ñëpp la parce que parce que aussi le problème professeur comme ni nga ko waxee dangay gis koo xam ne euh, dafa jël tooke jël loo xam ne poison la ci yaramam dañuy obligé comme ni nga ko jël taxi dem hôpital avec toute cette chaîne de prise en charge alors que peut-être su woon médecin bi rek fa mu toog mën na ko wax ne ko defal lii defal li defal li les signes de premier secours. effectivement waaw ne. effectivement non ne ko defal defal li mais même orienté ko. voilà. waxoon ko ni ban structure jubalal foofu. ñoo moo koy mën a faj di mu kii. ma jox la benn exemple pour ñi nga xam ni jàndalee na mat. exactement naroon nañ antidote bi antivenimeux bi am na xaw na cher mais am na même bu la jaan matte ñun boo toogee fa nga toog lu mu sori sori bu ñu waxtaaneek yow nga expliquer ñu mën nañ ne la jarul ngay dem hôpital parce que du jaan ñëpp am dangar te même jaan yi am dangar du ñëpp lay bàyyi ak dangar bi. Mm. suñu bu la màttee au bout d'une heure de temps deux heures de temps ñun mën nañ xam ni dangar dugal na la ko pas parce que soit fa mu day nàcc wala mu yi léegi lan mooy signe yi nit ki xam ndax dangar bi dugg na ko. dangar bu duggee fi mu la màtt. Hmm. dafay nàcc te nàcc bi du taxaw. wala muy neewi neewi bi di yéeg. ok soo defee une de temps deux heures de temps nàccul dangar bi yéegul amul neewi neewi buy yéeg. bu la jaan màttee kooku bàyyiwul la dangar peut-être bu ñuy kii dañuy def piqûre la antitétanique. waaye nag jaan dafa doon loo xam ne nii même boo ko waxee nit ñi des fois du tere ñu gàddu seen bagage jubale hôpital. waaw bi ñuy am. Ah, plusieurs fois. am nañu ay cas da nga leen di wax nangam nangam beneen bi aussi mooy bu la màttee ba nga xam ne dangar baa nga fa ñun mën nañ la wax wax ak médecin bi ne ko jox ko ñaata dose parce que matt matt bi am na nu muy demee benn dose dina doy des fois ñaar des fois mën na dem antivénin bi wala antivénin bi te lu ñuy gën gaaw rek gën a mën a sauver nit ki mm-hmm. raison pour laquelle mais par exemple ñaata waxtu comme bu la jaan màttee bàyyi la venin am ñaata waxtu lañ mën sauver nit d'ici à. ñaata ça dépend ci jaan bi. am na yoo xam nag du xaar moom au bout d'une de temps nañ la. na la xam ne nag des fois même bu ñu deful dara dangar bi mën nga nekk dans le coma. yan jaan ñoo gaaw a reye noonu. bon tur yi au wolof du ko mën a wax. mais je sais que si tubaab li am na ay vipère. ay ay cobra. Mhm. yooyu yëpp am na ci am na am na am na ci yenn zone yi même Dakar. ñàngoor ay jàngoor. même Dakar gii sax am na fi ay. jaan bien am na jaan parce que récemment rek am na benn quartier je pense Nord Foire la xaw ma waa Médina euh, ñu ngi doon alerté naan am na ay jaan yuy. am na ay jaan am ñu muy màtt ñu am dangar comme yenn màtt màtt yu bëri donc fi ma doon ñëw ci orientation bi hmm. déjà loolu mun nañ ko def ak nit. bu demee structure bi également mën nañ ne ko defal ko lii defal ko lii. defal ko benn dose ñaari dose ñetti dose. mais nag des fois nit ñi du ñu am du am moyens yi. du ñu am moyens yi ndax. Euh, parce que bi dafa cher. waaw mu ngi jar presque quarante cinq mille. quarante cinq waaw. mais wàññeeku na nag. parce que ah. daana fi jar cent mille franc te bi daan jar cent mille franc ci frigo rek lañ mën ko mënoon a denc durée de vie bi day yeex. mais bi ñu am léegi c' est un lieu filisa pëndax la bu ànd ak butéelu ndox buñ ci yokk. avant ñu la koy pikiir te boobu jarul ñu koy dugal ci frigo te mën na yàgg. d' accord. te dëkk bi vraiment wax dëgg yàlla foofu waa pharmacie nationale d'approvisionnement ñu ñu ciy jàppale ndax quantité bi ñu fi am doy na pour yor population bi day dem sax ba périmé mais du tere ñoom dañuy wuti waat ñëw teg. et chaque année dañuy wax dañuy jokkook euh, ministère ñu bind structure yépp pour au moins ku nekk dans sa structure nga am ñaari dose antivénine maintenant nag ñoom ak population bi pour ñaari dose structure hospitalière maye benn dose ñaari dose je pense que pour sauver une vie du dara bu ko nit ñi mënee fay alhamdulilah bu ñu ko mënul fayit hôpital bi xool ak ñoom mais loolu daal toujours ñun dañu ciy taxaw rappeler ko structure sanitaire yi pour ñu am antidote bi pour euh, ñëwaat maata jaar d'accord mais au delà parce que euh, man damay bëgg ñu chaque fois ñuy wax li nga xam ne askan bi dañuy jànkoonte ak moom au quotidien dañuy dund ak moom comme exemple jaan bi mais tey gis nañu xaj ñu bëri morsure de de de chien xaj bu leen màttee parfois du ñu am lu ñuy def lu ñuy def rek ñoom tam mooy jubalu hôpital est-ce que yéen par exemple bu ñu leen woowee ku xaj màtt bu leen woowee lan ngeen koy digal waaw ñun bu bu la xaj màttee mën na nekk xaj mën na nekk mbaam mën na nekk màtt màttu rab yooyu yépp mhm. ñun bu dul loo xam ne nii day joxe venin par exemple jaan mën na nekk jiit mën na nekk yamb kooku ñun dinañ wax ak yow xool nuñ koy mhm. mais bu dee xaj moo la nag dañ lay orienté nga dem surtout maladie infectieuse ñoo nekk ak ñun wala nga dem institut Pasteur parce que ci teg mooy nit ku ñu defal ko ay ñàkk mhm. pour rage bi parce que rage la la mën a jox rage ay ay doomu jàngoro la ñun duñ ko toppatoo mais bu ñu woowee rek dañuy orienter patient bi mhm. Mhm. bu njëkk institut Pasteur rek ñoo amoon vaccination bi mais léegi maladie infectieuse am nañ service vaccination et surtout que ñoom it seen liggéey la directement donc dañ lay orienter assez rapidement d' accord mais professeur ñu bëri li ñu xamul man damay suivre yenn saay comme nit koo xam ne dafa ñàkk bakkanam mhm. euh, parfois autopsie bi yéen dañ leen solicité sollicité euh, comme nit ku ñu posone dañ leen di sollicité pour ngeen vérifier est ce que poson la ou pas euh, bon en fait si question bi nga bëggoon posé mooy poson buy reyee nit ki naka la koy jëfandikoo poson boobu mën ko rey waaw pour euh, pour pour. comme comme par exemple da nga dégg naan kii kat dañ ko posane. waaw loolu xaw xaw na xaw na jafe tuuti mais quand même euh, bu dee wàllu laboratoire avancé na avancé boo xam bu ñu amee moyens yi mun nañ ko xam. Mm-hmm. mais fi ñu toll nii wax dëgg yàlla on nous tout le temps. waaw mais bu xam ndax nit ki dañ ko posane wala déet. waaw dañ ko posane wala posane la jël wala sax drogue mën na nekk drogue waa police ñëw ni seetal leen ñu ndax kii jël na drogue bi ou pas. bëri na ci ay poste bëri na ci ay cas yu fi jaar yu jaar même ci presse bi ñu naan. Mhm. France lañ ko yóbbu fii lañ ko indi. des fois du ñu am moyens yi dañ leen di tontu aussi ne leen kat lii ak lii ak lañ mën a def def nañ ko lii waroon nañ ko mun def mais jotuñu koo def ndax amuñu ay moyens. kon yéen da ngeen jànkonte ak problème de moyens. ah bu baax a baax a baax comme xam naa toutes les structures mais ñun quand même parce que on a un laboratoire boo xam ne nii. c'est euh, presque le seul laboratoire pour les toxiques au niveau du Sénégal pour ne pas dire dans la sous-région mu fàttali leen ni en Afrique de l'Ouest ñaari centre antipoison fi am bu Sénégal ak bu gana te bu Ghana yàggul pour diir que même ça devait war nañu def loo xam mu gën a nekk centre de référence mm laboratoire bi incha allahu rabbi quand am na ay moyens yoo xam ne nii état bi teg na ko si projet REDIC bi nga xam ne nii ministère de la santé moo koy coordonné li ñu def mooy daaw joxoon nañ ñu deux cent cinquante millions boo xam ne nii def nañu appel d'offre bi pour am matériel bi xam naa léegi mu yëg si bi ñu ko weesee daaw it au niveau euh, du ministère nit ñi waxtaan nañ ne daan ne ah centre bi seen laboratoire laboratoire de référence la war a doon ba tegal ñu un milliard un milliard boobu également dinañ def incha allah bu matériel boobu yëgsee ñu am personnel bu ñu formé bu soobee yàlla problème yu bëree bëree bëri dinañ ko mën a régler surtout sur le plan expertise médico-légale mais des fois il peut arriver vraiment que ñu indil ñu ay kii histoire bi ñu explique ko yëpp mais on n'a pas moyens de faire les analyses c'est ça. dans ce cas du mujj fenn doo mën a topp kenn comme aussi yenn saa ñu am ay tests yoo xam c'est relativement simple am na ay cas yoo xam ne tout récemment wax nañ ko ci presse bi comme yan déet duñ duñ ci yegg sax waaye bi ñu leen indee seen euh, kii yegg yooyu ñun xam nañ nit ñi seen yaram drogue a ngi ci dëgg la waaw du yoo xam ne nii dañ naan dañ koo jaayoo ñun dañ ñuy indil rek ñu seet daan ne ah, kii kat jël na drogue te bii la wala bii wala bii après police mooy yeggale liggéey comme des fois ñu indil ñu prélèvement ñu xool loolu aussi am na fi ba Sénégal di tàng jër ñu indi ñu ne ñu xool leen ndax kii dañ ko posone ndax dafa dee mbokk yoo ñu ne leen bon. waaw mais parce que si temps événement yi moom. je na fi cas boo xam ne. voilà yéen waa indi woon nañ ko. waaw pour xool est-ce kooku produit bi ñu ko piis liñ ko pomp ñëpp xam nañ lan la wax ko piis moom andi luñ ñu ko moom. <laughs> ah mais dégg naa leen ci de professeur. waaw ñu ci <laughs> ah. ñun nag luñ ñu laajul du ñu dem ci. presse même bu ngeen xamee lan la. waaw non mem bu ñu xamee lan la dañuy laaj parce que on fait pas de l' activisme. Mm-hmm. bari na fi ay analyses yu ñu def yoo xam ne nii dinaa la jox exemple bu bu bu simple et macha allah mu ngi réglé wu. mais am mm-hmm. ñuy indil ñu ñëw ni ñu waaw indil ngeen ñu ko. mais kii ngeen ñuy seetloo posen bi. Mhm. dafa ne woon sous traitement. ça veut dire jël na ay garab. Mhm. buñ ko seetee gis garab yooyu aussi san ne veut pas dire dañ ko posone mhm. te même ni ngeen ko conserver prélèvement yi indi ko tey bu ñu defoon analyse yi du jur dara. di ngeen gis poison bi. même bu ñu ko gisee duñ ko mën a interpréter ndax boo waree denc prélèvement bi à vingt degré congelé ko. nga teg ay fan indi ko boo ñu ko indilee bu ñu jëlee résultat mënoo conclure mënoo ci topp donc loolu aussi day permettre ñun ak police ak gendarmerie justice de manière générale ñu xool nu ñuy améliorer affaire mhm. alors la où également pour te dire que on ne fait pas de l'activisme euh, depuis année yi yëpp dañuy topp pour ñu am benn norme sur le plomb dans les peintures xam nga plomb tooke la boo xam dafa bon ci xale yi. te ngi ci peinture te am na ci ay peint bu jëkk peinture yu bëri dañ ko doon def léegi dañ ko très presque àdduna bi yépp mu desoon nag pays africain yi mais ñun ak ministère de l'environnement direction du commerce ak euh, association Sénégal normalisation fexe nañ ba ab norme pour ne peinture bu ci kenn defati colorant boo xam dafa am plomb. waaw ah, mais apparemment professeur ñu tere bitim réew yu bëri. xaaral xaaral ma amul plomb xam nga fi ma <laughs> jëm. Ah, léegi bi ñu defee noonu am norme sénégalaise. Mhm. Sénégal jël norme bi yóbbu ko CEDEAO ba ñu am norme CEDEAO. Mhm. CEDEAO ministre yi daat koy def réglement bu ñu nee règlement da di loo xam dañ ko war a appliquer obligatoirement donc normalement su ko Sénégal appliqué waratuñoo bàyyi benn peinture bu am yenn taux de plomb yu dugg Sénégal avant loolu yëpp di am ñun am nañu ONG bu ñu doon travail ñu jàppale ñu bañ def ay prélèvement ci peinture yu bëri ay marque yu bëri mhm. yoo xam dañoo dem jënd ko ak suñu facture loolu nag li ko jiitu mooy bi ñuy def norme bi dañuy invité woon industriel yi. Mhm. expliquer leen lu plomb bi mën a def également wax leen ni ñoom mën nañu am peinture te duñ ci def plomb. Mhm. bi ñu defee analyse yi mu am ay peinture yoo xam ne ni sur trente cinq defe na am na ci onze yu amoon plomb mais boobu règlement bi comme duggul ni ñu def mooy dañoo def un rapport. jox ko ministère de la euh, de la santé ministère de l'environnement ministère du commerce. pour wax leen situation bi sans même wax leen marque yeeg yooyu. confidentiel mais ñi nga xam ne da leen a concerné ñu am peinture yi dañ leen bind lettre confidentielle. Mhm. ne leen yéen seen peinture bi dafa am plomb. maintenant bu ngeen ci bëggee xam ngeen jokkook centre antipoison ñu waxtaan ci et puis aussi mën nañ leen a booleeg ñoo xam mën nañ leen a jàppale ba ngeen am peinture bu amul plomb mais dañoo ñëw bu ñu ñëwee aussi dañ ne mais est-ce que suñu peinture la fu ngeen ko jëlee ñu wan leen facture. Mhm. ñu xam ne ñoom ñoo ko moom ñenn ñi fekkoon na peinture boobu arrêté woon nañ ko am na ci société boo xam daa ñëw duñ kan ñun kat xamuñu woon nii dañu ñuy jox peinture boo xam produit am na plomb bi ñu wooyee seen partenaire extérieur yi ñooñu la leen waaw dañ leen koo joxoon parce que njëg gi moo tax mhm. ñu ne leen nag déet na ngeen ko arrêté ñun soxlawuñ ko exactement pour vous diir que ak waxtaan ñu bëri ñu ngi koy indi mais duñu xam ndax am na même peintre yi jànkoonteeg boobu duñ ko xam. bien sûr parce que je pense que y' amoon na benn rapport bu boo xam ne génnoon na un peu pour xool secteur d' activité professionnelle yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a toxique entre guillemets mais ñiy liggéey ci peinture bokkoon na ci. waaw li liggéey ci peinture. Ah. y' a plomb bi mais y' a yi. waaw ah. xam nga loolu aussi beneen problème la Sénégal boo dee dem di jënd solvant dem ci marché bi xam nga luñ lay lu la menuisier yi wax wala peintre yi nga jënd solvant cellulosique wala beneen bi nu mu tudd Euh, ñaari tour daal ngay gis alors que tour yooyu ñun du tour produit chimique am na solvant yoo xam dañ koo tere ci àdduna mhm. on ne sait ndax ñu ngi koy jaay Sénégal ou pas tudde ko cellulosique ou synthétique voilà ñaar yooyu leen ngay gis ci boutique yi mais synthétique du tour bi mën na solvant dafa bari ay xeet am na mooy li ñu wax diluant diluant diluant lañ koy wax fii donc am na diluant yu bëri dañ ko tere te da koy gis Sénégal wóoruñu parce que amul étiquette du ñu bind réellement produit bi lan la maintenant ce qu'on a fait également ak waa environnement ak euh, normalisation pour dire que centre mu ngi liggéey lu bëri mm. fexe nañ ba léegi am nañu benn norme pour l'étiquetage des produits chimiques okay. produit yi jënd pour yóbbu ko suñu kër pour au moins ñu xam tur bi bu fekkee dafa dangereux composition chimique bi composition chimique bu fekkee dafa danger ñu def symbole de danger comme ça nit ñi si boppam ñoom mën nañu xoolal seen bopp xam ni produit bii kat attention mën nañ utiliser. surtout diluant boobu am na ci ay am na ci benn diluant solvant boo xam ne nii néew ma mu ngi fi utiliser mais c'est cancérigène. Mhm. ko kenn waru ko laal sax ba koy utiliser. Mhm. mais on ne sait mu ngi dugg ou pas. Mhm. lu tax su attention parce que une fois suma benn collègue daf ma musa dafa am musa jot benn nit ku am cancer. ku doon peinture da doon peindre est-ce que du solvant yooyu ko jàpp ou pas solvant yi baaxuñu. mais mën nañu fexe ba aussi solvant yi gën a. mooy toxique ñu utiliser leen ba noppi peintre yi di protéger wu. Ah. parce que ñoom du ñu protéger wu dañuy diw rek dafa ni produit seen xarit la. Mhm. yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne nii euh, dafa am te je pense que mën nañ ci def lu bëree bëri. ñu ngi ciy jéem en tout cas moom vous avez un vaste chantier. waaw yéen waa <laughs> centre anti poison mais peut-être mënuñu jeexal te mënu waxuñu si intoxication alimentaire. parce que yéen bokk na aussi tam ci seen liggéey surtout yow spécialité bi nga am muy toxicologie tey euh, bëri na ñoo xam ne ci kër yi dañuy jànkoonte ak alimentaire ñii lekk bu foox la comme ni ñu koy waxee ñii peut-être lekk bu fanaan ñii dañ ko congeler et cetera pratique yooyu laa bëggoon peut-être nga yeesi nit ñi. waaw intoxication alimentaire ñun am nañ ci wàll mais tuuti lañ ci am. Mm-hmm. ndax pour intoxication souvent moo ñuy boolee mais lu ci bëri ay doomu jàngoro la dañuy wax ay bactéries ñun tooke lañu bactéries yi service maladie infectieuse et ñoo koy toppatoo mais des fois doomu jàngoro boobu mën na sécréter ci lekk bi lu ñuy wax tooke mhm. même lekk mën na forox nga togg ko rey doomu jàngoro bi mais dafa am yenn saa yoo xam doomu jàngoro bi si boppam mooy jur tooke bi ci lekk bi wala lekk bi nekk ci biir doomu jàngoro bi ngoo ko toggee tooke bi des ci lekk gi di nga gis lekk bu tàng jër nga lekk ko am intoxication mais intoxication yu bëri c'est parce que dañ ko bàyyi mu forox c'est-à-dire euh, bactéries proliféré bari ci lekk bi ba boo ko lekkee mu defal la intoxication souvent yooyu mën na bañ a yàgg antibiotique benn fan ñaari fan sa piir doo mu arrêté mhm. mais bari na ci ay tooke yoo xam ne nag buy àndeek doomu jàngoro bi moom des fois mu demandé ay hospitalisation et cetera mais yooyu souvent aussi yow mun a xam da ngay lekk dara groupe ngeen des fois c'est souvent c'est collectif. groupe ngeen. ñëpp ñëpp amagoo même seen tom ñëpp fàqandoo jëm hôpital. Mhm. mais souvent lu ci bëri yàlla daf ci def kii mais li am solo daal mooy lekk je pense que am na nu ñu koy conserver am na ñu ñu nekkal waa codex alimentarius. Mhm, mhm, codex Sénégal ñoom ñu ngi ciy def liggéey bu am solo. di yee nit ñi yenn saa sax ñu wàcc wàcc si marché yi. expliquer nit ñu nu ñu mën a defaree lekk yi te lépp mu ngi commencer sunu marché. je pense que bari na. sensibilisation bu ñu war a def jaaykat surtout lekk yi nga xam ne nii dafa gaaw a forox mhm. yàpp yi jën yi nuñ ko war a jaayee nuñ ko war a denc kër yi également xool nu ñuy denc lekk yi parce que ñun dañoo yaakaar du dugg ci frigo rek jeex na dootul yàqu alors que euh, dans le temps ça peut également entraîner des intoxications d'accord moo euh, xam naa li ñu des waxtu bëreetul euh, professeur yéen au niveau du centre yan jafe-jafe wax nga ko sànq problème lavatoire problème aussi tamit euh, li nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam personnel ñàkkul na am ngeen ko mais est-ce que comme ni nga waxee centre bi ñu bëgg xamuñu ko est-ce que da def ay descente surtout secteur environnement comme ni ngeen ko waxee ñi nga xam ne dañuy utiliser ay produits chimiques def descente ci maraîchers yi def descente si paysans yi est-ce que di ngeen wàcc di sensibiliser loolu loolu yëpp war nañu mais moyen rek moom mooy tax des fois ñu am difficulté te dire que ren dem nañ ba Tamba def fa une semaine pour euh, sensibiliser sur ni ñuy utiliser mercure ñenn saa yi ñiy def orpaillage tradi- euh, clandestin moom la ñu utiliser mhm. acide cyanhydrique benn tooke bu gaaw a rey mhm. boo xam ne nii ñiy extraire or bi industriel ñoom xam nañ ñu koy utiliser mais gis nañ ni aussi ñi nga xam ne nii euh, c'est l'orpaillage traditionnel aussi des fois ñu ñu ñu yor ko wóorul ak yeneen produit Kédougou def nañ ko à chaque fois que c'est possible dinañ wàcc ci terrain bi mais on n'a pas toujours tous ces moyens là pour faire ce travail là sur le terrain mm-hmm. même bu ñuy dem mission souvent ñun dañuy abal oto pour ñu dem ñun la war dinañ defar ay flyers et cetera demander nañu pour avoir un plan de communication parce que aussi communication sensibilisation métier la ah il faut ñu jàppale la ci pour nga mën a dem sur le terrain yéen it des fois du ngeen tey am naa chance am leen mais la dernière télévision qu'on a reçue ici au moins de trois ans. Mm. et euh, c'est que le Hann en pason on n'en parle pas beaucoup alors que. di si profité sax pour jaale seen mbokk bi fi ñëwoon muy Fatou Kiné Deme. ndeysaan yàlla yóbbu ko mm-hmm. moom moo fi mujjoon pour ñu def émission et cetera pour bu dire que lii lu ñuy xaar la pour ñu gën ñu xam. wàcc ci terrain bi on est prêt à le faire et je pense que. si surtout, on a surtout surtout quand je dis bi comme ni nga ko waxee sànq euh, fexe xamal askan bi yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy def comme peinture yi am plomb yooyu yëpp c'est des choses qu'on utilise on les passer yeneen réew yi tere nañ ko euh, pesticides yi yooyu yëpp c'est des y ko beaucoup pratique pratiques illégales yu fi nekk yoo xamante ne dafay indi poison day indi tooke il faut qu'on vous donne les moyens vraiment pour que ngeen parce que souvent nit ñi ñu ci bëri lu bëri lu ñuy def xamuñu ko ma jox la exemple bu simple bu am y a pas longtemps benn kër bu ay xale doon tëdd seen waajur dafa bëggoon a rey matt yi mhm. mu dem jënd benn tooke dugal ko ci néeg bi tooke yooyu souvent boobu tooke boobu dañ koy utiliser pour denc ay jiw mën na ci denc sax ñebbe bu ñuy lekk parce que day mel ni comprimé ñu takk ko ci morceau dugal ko ci biir ñebbe bi tëj ko benn day rey gunóor yi ci biir ñoom nag dañ ko jël dugal ko ci suufu lalu xale yi fi ñu tëdd pour rey matt yi effectivement mën na rey matt yi mais day fekk nga tëj néeg bi mais kenn du fa nekk ay fan nga ubbi ko aéré ni ñu soog fa dugg mais dañ fa dugal garab bi dugalaale xale yi fanaan ci mais xale yi ba ñu yeewu dañu dee parce que loolu da lay privé d'oxygène ok dafay xale bi du mën a nooy e ndeysaan vraiment defe naa am na ñaar ma ñetti xale yi gaañu woon ba ñu dem ci terrain def enquête mhm. demander une sensibilisation waxtaan ak bàjjanu gox yi foofu et cetera parce que xamuñu mais ñi leen koy jaayee dañ naan war na rey matt wax na dëgg mën na rey matt waaye day reyaale ki matt yi doon matt mm-hmm. parce que li rey matt day rey nit en fait ce que les gens pas ak ñi nga xam dañuy jël tooke di bëgg cee rey ay teeñ exactement gis nañ ko fii dañ ah. koy diw ci bopp xale bi wala seen bopp yi sax mm-hmm. ba noppi du ñu yem ci diw rek jël toile takk ko pour mu gën a efficace musóoru. non man man dama ñan ñëpp a koy def. Eh, eh, eh, <laughs> yooyu moom loolu boo ko defee mat euh, teeñ yi dinañ. waaw euh, boo yeexee mu ànd ak ànd ak. teeñ de l' côté. donc yooyu yëpp am des pratiques yu ñuy def te. am na ay produits yu destiné à ça am na yu ñu préparé pour boo bëggee rey ay mat yoo xam ne nii boo demee pharmacie am na ay produits pour rey ay teeñ day nekk ay tooke yoo xam ne nii dose bu faible la. di nga ko mën a def alors que da koy def si bopp xale. Euh, voilà mais parce que dose bu faible lay doon. waaw mais parce que pompe yi ñuy rey euh, yooyu. si li nga wax nii xam nga man lan la ma bàyyiloo xel chaque jour ñu dañ koy romb banalement ay nit yu téye ay produits ay pesticides ay insecticides en fait ñiy jaay ay felmat ak téeñ comme ni ñu koy waxee dans les rues dañ koy téye nii à l'air libre loolu tam yéen bu ngeen ko gisee du leen tiital wala. ah bien sûr ma ma chaque jour dañ ciy wax bu ñu dajee ak ñoom fi nga nekk ngay waxee mais faneen mu ngi am de manière générale c'est que suñu dëkk bi moom manqué réglementation pour les produits chimiques ci nag vraiment la ñuy jéem a liggéey ak waa environnement surtout pour mu am ndax amul benn réglementation amul lu ñuy tere amul lu ñuy bàyyi même boo ko fekkee ci mbedd mi da koy yedd rek mais amul fenn fu ñu bind ni moom waru ko jaay produit yi ñuy jël di ko def ci ay mbuus binduñu ci dara nga xam ne bu demee kër ga xale mën na defee ni suukar la wala xorom amul fenn fu ñu ko bind donc loolu yëpp ay kii la yoo xam ne nii même les services de l'État il peuvent pas intervenir pour tere ou pas am na ay magasins yoo xam ne nii même ñi nga xam dañoo war a jaay produit dafa war a am réglementation xam fu ñu leen di ubbeeg fu ñu leen tëj conservation bi ah, koo gis muy jaay ay produits yoo dem ci tool yi magasin sës ci kër yi muy tibb di def ci ay mbuus mais ñi ko wër foofu yëpp kër yooyu yëpp da leen di jox tooke bi. Mhm. te loolu yëpp y' a une réglementation y' a pas mais est-ce am ngeen ay chiffres peut-être pour euh, illustrer degré exposition produit chimique ak ni muy loree askan bi. bon chiffres yi ñu am mooy yi ñuy woo rek te woote bi mën nañ ni comme ni ma la ko waxee pratiquement boo toogee weer am 40 appels c'est très 40 appels. alors que da la woo ne cas yi ëpp na loolu. du benn. parce que souvent ñu bëri duñu wootee ñu bëri duñ déclaré de telle sorte que doo xam nu affaire bi toll te important importance nit ñuy wooteeg déclaré même bu fekkee sax euh, posen bi passé na ñun daf ñuy orienté ñu xam fu ñu war a orienté sunu sensibilisation. Mm-hmm. xam aussi fu ñuy orienté njàngale mi. Mm-hmm. parce que dañuy jàngal euh, ay pharmaciens bari na ay masseurs médecins yi. selon tooke yi am ci dëkk bi ak problème yi moo ñuy orienté ñun ñu mën a gën a defar suñu programme de formation et ñooñu bu ñu leen formé ce sont aussi des agents pour la sensibilisation c'est pareil également pour ñu xam pour chaque zone yan produit ñoo leen gën a amal problème mm-hmm. bu ñuy sensibiliser zone boobu ñu orienté wu mm-hmm. mais lépp ci ay moyens la maa ngi jox kaa bi bi ñu demee Tamba am nañu ñaari journée yu ñu def séance ak euh, les acteurs communautaires bàjjanu gox yeeg ASC e mais bi ñu waxee ba pare dañu c'est vrai lii ngeen ñu wax baax na mais bu ñu amoon des boîtes à boîtes à image boîte à image dina leen permettre ñoom ñu mën a def sensible sur le terrain mais nu stade boobu on n'avait pas les moyens de faire ces boîtes à image la si on se limite à bu ñu mënee yem ci budget bi ñu état bi jox pratiquement benn atelier de formation sax la ñu mën a def par année des fois ñu def ko Dakar def ko ñaari fan des fois bu dee région yi benn fan la mën a doon ndax déplacement yeeg yooyu demandé nañu nag ñu yokk ko chaque année ñu demandé ko mais bon comme dañu nekk réew moo xam ne lépp priorité li mm-hmm. on ne va pas arrêter di continuer di demander pourtant priorité la mais mais laaj nañu vraiment ñu produits chimiques yi ak ni ñuy doxalee ak moom ak ni mu ñuy loree je pense que priorité parce que lu ñuy jànkoonteeg de tous les jours la surtout parce que ah. li ñu fi parce que xamante ne tey dañuy à l'hôpital c'est lié à ça li ñu fi waxagul yëpp sax mooy took yi ngay jël mu mu mu feebar la léegi mais took yi nga xam day dugg suñu yaram tuuti lay doon topp la di la topp chaque jour nga di ko dugal tuuti du la dangay xëy rek mu daaneel la loolu souvent bëri na fi parce que boo gisee cancer yi day yokk ah. euh, insuffisance rénale yi yokk mais yooyu yëpp am na ci yu bëri yoo xam ne produit chimiques yi ñoo koy joxe c'est doo ko xam parce que fi muy commencé du dugg ci yaram ni ak ba muy feebar dafay xaw a soree ba da ngay defe ni du produit chimique mais je suis sûr bu ñu ci travailler insuffisance rénale yi dina wàññeeku insuffisance rénale day wàññeeku moo gën fu ñu toll ñu nii dañuy ubbi des centres de jalis c'est pas un sign de bonne santé bu ñuy compte centre de dialyse baax na bu ñu feebar ñu faj leen mais fexe ba ñi feebar wàññeeku et ça ça commence surtout par la prévention il y a de prévention pour yenn maladies chroniques yi parce que aussi ay facteurs yu ci am maanaa la diabète hypertension artérielle mais tooke yi également je pense que nañ ko ci boole bu baax a baax parce que priorité la seen priorité de santé publique. mais nag du ñu du ñu parete waxuma ci cuuraay bi kar waaw mais loolu bëggoon naa la ci laaj. waaw parce que bëggoon naa ci laaj daf ma que bi nga wax ci poson yi la bokk. poson yi cuuraay yi ñuy utiliser. xet mën na naqari ñàkk bon ci yaram te mën na neex te bon cuuraay du dara lu dul nga bax si ay produits chimiques yu bëri même bu dee seen xet neex na boole kook ay bant wala lu mënta doon taal ko lépp lu ñuy taal rek saxaar soosu rek pour ñun baaxul. mais ni ñu koy taalee la wala taal bi sa boppam lépp luy saxaar rek te même li ngay def ci cuuraay bi produit chimique yooyu peut-être am na yoo xam ne nii ay diluant la ay solvant la mën naa boo ko nooyee mu gaañ la parce que fii gis nga ni ngeen defee mélange te souvent gën a jaxasoo rek gën a cher ak gën a yàgg des fois ñu def cuuraay ñaan yii bi dañ koo nëbal un an parce que buñ naan da ngay def cuuraay waaye du saxaar waaw ah. déedéet parce que saxaar ba mënoo koo gis dafa sew a sew a peut-être ba mënoo ko teg mais mi ngi saxaar te li nga mënta teg sa bët lu mu gën a mën a sew gën a mën a dugg ba yegg ci poumon ba sa fond ba te booboo gën a bon ok waaw mu ngi mel ni diggante li histoire bi amoon oto diesel yeeg essence diesel bu njëkk saxaar si da doon bari ñu ni noonoo day feebar nañu wàññi diesel yi ndekete essence bi saxaar bi muy génnee particules yi ñuy wax doom yu sew yi dafa tuutee tuuti ba doo ko gis sa bët te yooyu gën a bon ci poumon. non foofu moom jar nañu taxaw parce que jigéen ñu bëri da nga naan non man de sax cuuraay léegi ni ma koy taali du sax saxaar mais kon mi ngi saxaar ci suuf te saxaar boobu nga dul gis moo gën a bon ah, loolu moom mën a taal te du am te du am am fumée des fois mu nekk fumée blanche fumée noire fumée bi sew ba doo ko gis mais peut-être boo amoon yeneen appareil man ñun def nañ ko toog nañu selon différentes système yu ñuy taale cuuraay jël suñuy appareil mais les la première heure là nii la particules yi yéegee c'est après lay commencé di wàcc te wàcc bi fan la wàcc sa lal la wàcc sa fauteuil bu poussière boo fëggaatee xam naa ne Kébé moom ak Issa moom ah. bés ni ko tey dootuñu taal cuuraay seen <laughs> am naan daal lu ci mënta nekk adduna ah. moom yamale baax waaw léegi pompe euh, parce que euh, nit ñi da ngay jàppee lu banaan da ngay gis ñoo xam ne man du ma taal cuuraay euh, parfum chambre laay def da ngay pomper loolu tam c'est un produit chimique. lépp ay produits chimiques la mais maintenant c'est surtout que sunu dëkk yi dañ ciy dugal produit yoo xam du doon produit de qualité. c'est du ñu xool ndax produit bi dina gaañ ou pas néew ma day gaañ de mais comme xamuñu lan la loo xamul lan la moytu ko te yooyu yëpp xam nga pour lan la dàq xet. Mm-hmm. xet moo fi ne nga bëgg ko dàq te doo ko dàq da koy muur parce que da ngay jël beneen xet bu mën a muur xet bi nekk ci biir néeg bi pour muur xet bi li gën a yomb ci dàq xet mooy nga aéré. Mm-hmm. ubbil nga ay reqet bi génn je pense que moo gën a simple parce que neex-neex bi odeur bi ci bakken bi lay yem mais xamoo sa biir yaram vraiment lan la fay def. d'accord ah. non je pense que loolu moom c'est c'est c'est très important fallait pas ñu occulter ko. waaw c'est c'est loolu moom man jàng naa si ñeneen ak ñeneen jàng nañ parce que c'est des c'est des c'est des rumeurs mm-hmm. yu ñuy véhiculer alors que ba daf daf ko dëgg. ndekete moom mooy gën a lor nañ ñi seen wàllu wér-gu-yaram. waaw bëri na bëri na bëri na rumeur yi kii euh, sànq waxtaan nañu bay wax waxu dar ndaamaraas boo ko lekkee naan meew da ngay dee. waaw loolu nag moom nit ñi nañ ci xaw a yeew ñaari lekk yu baax kenn du ko jaxase muy bon lekk moom bu xisee ba baax. ndaamaraas baax na meew baax na. ndaamaraas baax na meew baax na. dama xamul nag yan condition la ñuy jaxase ñaar yi parce que gisuma en tout cas Sénégal ban plat xanaa nga koy yéey naanaale. mais mais amul dara du ci bon. du defe dara donc loolu li bon daal mooy lu ëpp li si olof naan lu ëpp tuuru te posen de manière général loolu la mm-hmm. su ëppee rek gaañ la même bu ñu koy am toujours sunu sunu lekk yi bu ñu xoolee ni lekk bi warul passé niveau bi nga am àdduna yépp seet nañ ko ba xam ni même bu dee da ngay tooke bi ci lekk bi bu concentration concentration bu dépassé wul benn niveau mën nga koo lekk tous les jours ba kere ngay dee. Mm. mais saf-safa li ñuy def si suñu lekk yooyu moom ñëpp xam nañ ne baaxul dañ koy def mais mooy. ay ñëpp ñëpp mooy ñan. ah population bi même ñun jigéen ñi koy def. xam nañ saf-safal bi lan moo ci nekk. ah mais c'est des produit chimique mooy. doom ah, yooyu je veux pas de la publicité. xam nga ñuy yokk ci. xam nga loolu yu ci bëri euh, c'est pour neexal. des nga gis ko. ñu ñu yokk ci ay produits pour neexal mais produits yooyu normalement war na seet nañ ko ba xam ni yenn niveau yi du doon tooke. Mhm. dans ce cas mën nañ ko utiliser. saf-safal bi c'est pour euh, yokk cafka bi mais c'est surtout li nekk ci kii bi bu ma jëlee kaaw euh, bouillon yi. Mhm. li ñuy wax bouillon Sénégal. parce que définition bouillon Sénégal ak bouillon au niveau inter bokkul définition mais Sénégal bouillon bi ne fii lu ci ne xorom xorom bi moo ci ëpp. acide glycémique bi ñuy wax bariwu ci ak yeneen affaire yoo xam ne des fois duñ ko xam mais quantité xorom bi ci nekk rek minimum norme bi dañu cinquante cinq pour cent booy xool ñaata bouillon ngay jël ba noppi des fois da ngay def bouillon bi dolli xorom. te xorom ak suukar mooy loo xam ne loo ciy lekk rek chaque jour mun la dollil. Mhm. boo ko wàññee di nga dem ba bari na ñoo xam ne nii man may naan café duma ci def suukar parce que tàmm naa ko suukar bi. boo ko ci defee c'est pour café bi gën a neex la rek mais sa làmmañ a koy la koy wax bouillon bi c'est la même chose booy xorom chaque jour danaan laa dollil xorom dollil xorom yow doo ko yëg looloo indi tension yu bari yeeg et cetera man bu may wax ci côté euh, bouillon yi maa c'est surtout xorom bi mu mën a indi la yeneen produit yi bu dee acide glutamique cher na cher goo xam ne nii industrie yi duñ ci def lu bari mm-hmm. mais xorom bi si boppam moo gën a nekk saf-safal et eh, eh, nu ñu koy woowee sax ci olof du safal cin xooma boo koy jënd guddi xooma mhm. xorom kese la mhm. donc booy dolli def jumbo dolli waat xorom ça veut dire que yow xorom bi day bari si lekk bi doo ko sentir boo ko tàmmee te malheureusement mu ngi yéegal sa tension bu baax mi ngi noonu en tout cas je pense que c'était très intéressant man mi def émission bi sax professeur à vrai dire jàng naa ci lu bëri parce que on vit dans une société ñun ñëpp te rumeur yooyu yëpp dañ ko màggaale y a des pratiques yoo xam ne ñi ngi koy def wala ñeneen ñi si seen wàll liggéey ñi ngi koy def joxe nga exemple peintre yi menuisier yi ak euh, ñiy utiliser pesticides yi yooyu yëpp ñi ngi koy ñi ngi siy liggéey di daan seen doole mais feebar yi mu indi ak yi mu indi askan bi je pense que loolu yëpp bàyyi nañ ci xel mm-hmm. en tout cas c'était très intéressant plaidoyer bi moom ñun vraiment ah. euh, émission bi moom euh, may ma la ndu fay sax dina ma ko may vraiment parce que tam mënuñu comprendre structure boo xam ne c'est une de service public ngeen di liggéey si wàllum urgence amoo leen sax numéro bu accessible waaw loolu moom. numéro baa ngi noonu. waa numéro dénk nañ leen ko. waxaatal numéro bi comme. Euh, askan bi numéro d'urgence c'est 818 00 15 15. am nañ beneen numéro orange 78 388. 32 32. voilà parce que question dund ak dee la tey jii ku jaan matt wala ko xam ne da naan poson wala ñu posone la wala tooke et cetera da nga siy woote rapidement tu auras des conseils. je pense que loolu moom vraiment ministère de la santé war na ci def priorité mu nekk numéro boo xam ne ñëpp mën nañ si jot parce que wax nga obstacle ak barrière yi am si numéro bi en tout cas ma lay gërëm bu baax. professeur waaw parce que c' était très très très intéressant ñu bàyyi xel cuuraay bi li ñu si wax bàyyi xel ci peinture bi ñiy liggéey ci du yi li ñu leen wax tamit bàyyi. ci xel dama lay gërëm professeur bu baax a baax ni ma ko waxee di gërëm sama ñaar cadre Issa Pouy ak Amadou Kébé di gërëm tam ki nekk si montage bi di Khalil Kouyaté mbokk yi j'espère que vous avez pris bon note euh, ça été vraiment utile pour vous ñeen jox daje rek ba beneen numéro seen émission la santé avant tout sur la 7TV ah, jërë